cooli cooli léegi leer leer na ba noppi góor si lembe réew mi saf gaañee ma doy du léegi leer te leer na ba noppee déglu leen déglooti leen ma wax ak it ndaa mi laa bëgga woo ba di benn xol yi di benn jëmm yi di benn wax mënta doon benn waaye xalaat na rafet moom ba di benn ci waay ndaa naa ni réew mi laa bëgga xam naa masamba yi mbiri ndaw bay duraas déemi godde dale deli ma wax Bayelbira Sidimi Godé ci waay ndaanaan ni réew mi laa bëgg macha allah salaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àddina asalaamualeykum mbooleem koo xamante ni rek macha ab sénégalais nga ñu naan la salaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yeneent bi sang-sang yi ñu ngi dugg ci hôpital yi seet ña fa nekk ñu ngi génn foofu tubaarkàlla macha allah dugg ci biir prison yi seet ña fa ne tubaarkàlla wàcc ci kilifa diine yi wàcc ci kilifa aada yi ziyaar leen ñaanal leen yàlla jàmm suturaak ak teraanga daay man di wax ne macha allah ne émission bu mag bi naan ëttu kër ndaanaan yi na mu daan def rek tey defati na ko macha allah tabaarakallaa defati na ko ñëw tey fekk si ndaanaan ju mag age bekaay ñëw nañ fekk si koo xamante ni kenn dootu ko présenté di partout dans le monde Pape ah kay wax nga dëgg ndaanaani réew mi ngay woo ah kay ci télévision bu mag bi ñuy nduru ba nopp te di ñu dajale laa télé qui nous rassemble et nous tey moo ñu dajalewaat fii ci kër age bekaay muy la télévision 7TV nijaay macha allah ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara ñu ngi lay ñaanal yàlla jàmm nijaay Bécaye nuyu naa la mbay ngoy mbay nuyu naa la bu baax di nuyu Pape ndaysaan ndeysaan baayam daan wax naan lu dagg moroom ma lay fekk rek mm. moonu fi dajale tey jii macha allah mbokk bu jógee ci mbokkam lay dem dëgg la mbay xel bu jógee jëm ci fu rafet ci nitam lay jëm ndeysaan ma am mbégte lool. dalal la fi yow sama jarbaat nga. ndeysaan ndeysaan mbay. sama doom nga. dëgg la mbay. ba pare yu ñee ko doon sama xarit. waaw looloo am de. <laughs> kon tey boo fi ñëwee. ndeysaan neex na ma. Mm. nga ñëw fi ànd koo xamante ni sama cousin laa ko mën a tudd. ndeysaan. ndax baayam bokk na ci ñi ma jàpp ci seeni uum. Mm. ba mën a oh. Njaga Bay. ngeen bokk fu baax na hmm. mooy ñëwee seet si ma fii nag ñëw ngeen seen kër. ndeysaan. ñëw ngeen seen bopp rek ngeen fekk. ndeysaan. di nuyu waa 7TV yëpp nag. Hmm. di am mbégte di sant yàlla di julli ci yonent bi. sallallahu alayhi ndaxte nit ku baax bu amee lu baax. Hmm. fi ñu toll man dama leen war a ñaanal. li tax war leen a ñaanal. ngeen di jóg di ñëw. bu ngeen sañoon da ngeen ñëw fekk fi jàmm. wallaay mbay. koy seeti jàmm nga mbay. koy seeti bëgg nga boo demee fekk ko ci wér. wallaay mbay. koy seeti boo bëgg boo sañoon boo demee fekk ko en bonne humeur. wallaay mbay. kon kooku kii ñëw ni la asalaamaaleykum kooku la yéen a jàmm. wallaay mbay. mbay maaleykum salaam maa ngi lay nuyu. ndeysaan nuyu waa télévision bi. macha allah dégg ngeen sama nijaay sama xarit ki nga xamante ni macha allah ba aji ngoy caale di commencé ci télé. daf ma wax baat boo xam ne ba tey mooy sama force baat boo bile mooy aji ngoy caali ma ne ko naam mu ne ma aji ngoy caali bu mu topp kenn na ngoy topp ngoy rek sama nijaay ju baax ju tedd ji moom ma ko waxoon borom bantamba ah tey ëttukan ndaanaan am na ndaanaan bu mag am na ndaanaan joo xamante ni tubaarkàlla macha allah wax naa ko sànq naa ko waxaat moom may mën a nduur fay ñoo yem ci réew mi fexe na ba doon leader. tubaarkàlla macha allah fexe na ba yor ci tele yi fexe na ba yor ci site yi fexe na tey ba doo tudd làmb boo boole woo ci âge Bécaye mboolem ko tudd ci réew mi rek mën naa ni Bécaye tey macha allah visa la boo xamante ni laaw la cat sama cat ak sama catal morom passeport bu mu tàmpewul doo tukki doo déranger doo dem fenn kon mbay ñu ngi lay ñaanal yàlla gudd fan ak wéy di la jox sa wàccuwaay di wax ne tey kontaan nañu trop fekk si nañ koo xam ne nag bala ñëw dugg ak moom fenn bala ñoo dem fenn bala ñoo wax dara ma faaliku ma ndaama tëx ba balaa dégg fukki barak ñaar tàkk mhm. buur géwél bi bekaay debbo bekaay faatu mbaay kuy bekaay ñaar ñooñu nga tudd ndeysaan ñaar ñooñu nga tudd ñooy bekaay ndeysaan ndax ñoo ma meññ fii ci fii kër gii nga ma fekk ndeysaan kër gi laa juddoo fii nga nekk fii ñu nekk nii fii ñu ne nii fi laa juddoo. waajur yi newoon fi newutuñ fi. Mm-hmm. ñu ne fi ne fi njaboot. Mm-hmm. taxawu leen it. Mm-hmm. ànd ak ñoom it. ndaxte ñoom samay takk ndeer la ñu. ndeysaan. waaw mbokk takk ndeer la. Mm. mbokk dafa foor. dafa foor bu mbokk dafa foor. ndaxte koo xamante ne ni mu dara mënu leen a tàggale. déedéet oh. sorenteeg. lu mu mën a doon mënta tax ngay tàggali mm. kooku mooy mbokk kooku mooy mbokk mbay mm-hmm. lépp neex na waaye mbokk dara dàq mbokk dara dàq ko laay mbay ma juddoo fii mm-hmm. màgge fi ñu yar ma fi mm-hmm. ci quartier bii di Grand Dakar ci jamono joo xam ne yar fi doom yombul mm. ndax na dëkk ba na dëkkin ba meloon ñuy dem nag ñu yar na fi ba nu màgg ba yar fi ñeneen ba mu fii sët nekk jànge fi it. waaw uuf fi fi njaboot bi mhm. ba dugg ci àdduna. Mhm. Hmm? nekk ci rajo. nekk ci télévision. Hmm. di ci bay sunu mhm. li taxoon ma ne la ngoy del wax ma del def ngoy rek. waaw. Marguerite Thiam amoon na. ndeysaan. Soxna Dieng amoon na Bintu Dieng amoon na. Maada amoon na. waaye ñooñu ñëpp seen bas lañ indi woon indi woon woon jëfi ña fi ne woon. dëgën chimère amoon na. ñëpp dëgën chimère amoon na. ñooñu ñëpp seen bas lañ indi. seen bas boo indee basi keneen rek. Mm. duñ la gis kooku la ñuy gis. te moo waral. boo ñëwee rek defal sa bas. defal sa baat. dëgg la defal sa waxin. Mm. defal sa jëfin. ak sa xam-xam. loolu moo la ci mën a génn. Mm-hmm. ngoy daal Bécaye Mbaye ngi noonu di reporter hmm. tey di gérer une télévision hmm. ah, bëgg réew mi nag te lu mu am réew mi ko ko gënal lu ma am rek hmm. Sénégal ma ko gënal mooy sama parti politique mooy sama lépp la Ismaïla Lo woyoon ne Sénégalais sunu yaay ku ko takk di sunu baay eh. waaw ñun ku bëgg réew mi rek jàpp na la baay daal ngoy ah. mooy kooku mooy alaaji bekkaay aji ngoy caali yéen a ngi ci ëttu tax ñu ne ëtt ci biir kër ndaanaan bi mooy tey fii ñu toog tubaarkàlla macha allah nijaay mhm. nga wax léegi lu am solo dama tudd Fatou Mbaye tudd Debbo nga ni mag ñooñu ñooñu man mii toog mhm. ñu gis tey bi nga tabaxee kër gi ba mu yegg nga def ci villa Fatou lu waral loolu. <laughs> moom moom ndax keroog bi bàyyi di jël kër gi di ko jënd ci ay ati quarante neuf. Mhm. moom moog yaay moog yaay àndoon. ndeysaan. jënd ko moom nekk fi. Mhm. jur fii doom am fii sër. ndeysaan buñ fi nekkatul it war nañ fee ne. ndeysaan moo tax kër gi kërëma. Mhm. ajaratu Fatou Mbaye nga bind ci villa faatu Mbaye. waaye ndaxte Ngoy. wax naa ko ci xale yi man leen yenn saay nga ubbi ab ëmb. Hmm. fekk ca loo xamante ne nii. boo yeewoo tuuti di nga xam ne defoo ko ci. laay am na keneen ku ko ca def. yenn saay hmm. nga dajje ab ëmb. Hmm. fekk ca teraanga. fekk ca mbaax. ca ngor. fekk ca lu ne luy jagal doomu aadama. defoo ko ci. kaka fi defoon xëy na mi ngi fi xëy na it newu fi. kooko kooko kooko mooy sa lépp. loo am mooma foo jaar moom la yenn saa nga dugg ci mbir moo xamee ne wóor na leen am njàng koy maye yàlla jox la ko dëgg la mbay mu yomb la lool dëgg la mbay waaw loolu nag loolu ndey ju baax dina koy joxe waaw ndey ju baax baay bu barkeel bu baax bu la yar yaru gor yaru diine mooy waral yenn saa yi fàtte leen ngoru loo am rek boole leen ca am na ñoo xam ne kër gën am seen turu baay lan ca def mm-hmm. am na ñoo xam ne kër gën am seen turu ndey lan ca def fii nag kër Fatou Mbaye la ndax ñun suñu papa suñu maam la mm-hmm. ndaxte suñu rakku maam la mm-hmm. ñu jël ko jox ko ci suñu yaay suñu doom bàjjan la Fatou la ba pare suñu baay di suñu maam sunu di sunu maam ah. lool la Bécaye mu Fatou Mbaye wax ndaxte xam nga lu tax. Hmm. Nogay Mbaye ak Deb Mbaye bokk Bakar Sarr. Maalo hmm. beeg Maajoor. Maalo bi mi ñu dénkoon Fatim sama ndey. waaw mi ngi noonu <laughs> mi ngi noonu. ndeysaan. Maalo bi moom ak Deb Mbaye bokk. benn baay ak waay Maajoor leen jur. Hmm. ak Maalo bee bokk ndey baay. ak xujj bay seenub jigéen. ay géwél yi ni ñuy bokke mbay. a ni ñuy bokke moo doy waar. Mm-hmm. nogay mbay mi jur sama yaay moom sama papa ñoo bokk benn baay. laay laay laay ndax sama papa Maajoor a ko jur. sama papa Bakar Saar a jur. Mm-hmm. sama maam ma Maajoor a ko jur. te mm-hmm. Maajoor ak Bakar man sama maam. sama bàjjan la. ndeysaan sama maam la. sa maam la. sama yaay. sa sama sama sama jarbaat. papa la. di sama yaay. dégg ngeen li Bécaye sama jaam la sama yaay sama jaam la sama jaam la sama yaay lu nekk la ma daan wax. ndeysaan ndeysaan. waaw lu nekk dama daan muulu bu ma ko waxee ne ma du la wàññi dara. <laughs> ndeysaan di jaay. <laughs> du la wàññi dara. ba tey ñu ñëw ci soxna su baax si sa ginnaaw. waaw muy mbaaye mi ñu duppee sa yaay. Mm-hmm. nga denc ko muy sa soxna. tubaarkàlla coon daf ne woon jigéen bu baaxee jural ma naari góor ak i futanke te juralu la daray coomo tubaarkàlla macha la jot. lu nga bokk ak Mbaye. <laughs> ba tey nga ni Mbaye rek. Mbaye Mbaye saf ci kër gi rek. waaw Mbaye la waaw moom Mbaye a dem mais Mbaye a. Mbaye a dellu si dëgg la. Mbaye moom. Mm-hmm. Mbaye mii. Mm-hmm. Amar Moussé ko jur. Mm-hmm. Amar Moussé. sama rakku yaay la. ndeysaan moom sama yaay bokk benn baay. waaw. Momar a ko jur. ndeysaan. Amar Moussa ko Momar ak Mangam bokk bàyyi. Modou mm. Ñaañaay seen ma. dëgg la. Modou Ñaañaay seen moo leen jur. ndeysaan mm. mu mu doon mu doon sama jàpp mu doon sama sama sama sang. sa sang. yooyu ñëpp jox ma ko. moom jëmm ji moom jëmm ji waaw. tubaarkàlla muy sama sang ba pare ñëwal bëti ko jox ma ko. man nag sama jëkkër la nangu ndax Bekaay sama nijaay la te xam nga ne nijaay moom yàgg naa jar bi baatoo jar baatam ñëw naa nag ci kër gi di def émission ñu ne ma mbaaye daw na ba ma ñëwee ba te tegu ma ko bët <laughs> macha allah gis nga ni géwél yi di bokkee du sama baay bi ma jur man ci kër gi la yaroo fii la yaroo baayu bekkaay mi moo ko jàngal métier bi mu doon def muy menuisier kon li mu ne sama kër laa ñëw Cheikh Sadbou loolu mooy liy dëgg ah. gis nga géwél yi ni ñuy bokke dégg nga li mu wax léegi ci papa Mbaye ah. wax ko waaw ah, doguma de pap mi hmm. sa diggante baayam laa bëgg a ñëw di <laughs> xam nga macha allah sànq dafa am loo wax danga ne bu fekkoon ne tànk ay wóom a koy doxal ci wóom bi baayam laa jàppandu tey ba doon li ma doon bi ñuy añ sa diggante ak Njaga Njaga Mbay la mu ngoon a njaay mm. papa joosu jóob ba mm-hmm. damay maasa mm-hmm. Ablaye Mbuub mm. ah, ah, ah, ak ajaratu xaar mbay nday mbay jiir ba jéej ba ma mm-hmm. jooju ñi ngi xarit Juuf ndeysaan soo da maam maa Njaay Sàmba danoo bokk baay dinañ ci ñëwaat ñoom waaw foofu dinañ fa ñëw ak laaj Njaga Faal waaw ak ñoom Njaga Faal ak Njaga Faal mooy seen nag waaw Alin Faal basaay seen waaw mais Ndiaga Mbaye mhm. Ndiaye Samba mhm. Ndiaye Samba Ndiaga Mbaye moo ne Papa Diouf si Ablaye Ndoub ndaanaan yooyu ñoom sa fa fay ak ñoom ñooñu kër maam la daan yendu mm. ñaari tali kër Ndiaye kër ñoom jaay Samba ñun bi nuy xale bi may xale dama leen di fekk ñu toog nii nii Pape def buuf xalam gi nii mhm, Ablaye Socé def ko ndeysaan wala Maguette Diagne ndeysaan boobu ñun ay gone la moo tax ma ne la ci óomi ndaanaan yi laa jànge dëgg la dëgg la xale yu ndaw la bu ñu way yi way yëpp way yan doon ay soixante yooyu hmm. yëpp xam naa ko ndeysaan amul lu ma xamul ci ndaanaan yi moo tax ma miin ko baayam nag yu ñeeku nag doon sama nijaay di sama xarit ndeysaan moom ay magam rakkam yu jigéen yëpp fii ci kër gi lañ leen daan létte saan umi mbayee leen daan létt xadi hmm. jabaay di seen maam ndeysaan Youssou Ndour da daan def bu muy xale. am mhm. fukki at ak yooyu da daan jóge naa dox. Mhm. dem ba Sicap pour na gis rek Ndiaga Mbaye. déedéet Ndiaye. waaw bu ñëwee tax ci buntu kër gi gis Khady Jabaay ni wax gone gii di fi ñëw kan la. moom Youssou Ndour moom Youssou Ndour Khady Jabaay ni ko yow foo dëkk mu ne ko Medina laa dëkk. Mhm. kuy sa maam mu ne ko Marie Sène mu eh, Khady Jabaay oh. ko koy seet mu ne ko dama bëggoon gis tonton Ndiaga rek. oh booba xol bi waye ci ne. waye ci ne. xamul leneen. c'est nday faat ni ni ko yegg si da ngaa xam njagam mu ne ko waaw waaw dama koy déglu rek de mu ko bëgg xanaa xamoon ni Youssou Ndour c'est le prolongement de njagam rek. nga ni. waaw bu woyee boo déggee di nga comprendre. ah waay Cheikh Sarr bu yaa ngi dégg loolu kii nag papaam da njaga nag daan nekkoon sama xarit teg sama nijaay di ma ñaanal ndeysaan dem di ko seeti ma waxee bay dem mu tàllal ma tàllal la mhm. mu ñaanal ma mhm. waaw dañ doon waxtaan ci yu bari mhm. waaw parce que boobu moom ak sama nijaay benn lañu Njaay Samba ak Njaga Mbay ba mu demee Sorano seen premier voyage danoo war a dem Algérie ñu ne leen dem leen ngeen wuti kayit yu ñu defar leen passeport kii dem ñu dem ba ñu ñëw ba jub jam ñaar ba njagam bay jëm taati bin ah. njaay sàmba jëm kër sàmba kan bi ñu demee ba indi seen i kayit ñu yóbbu ko police xam nga lu police defa hmm. danoo bind njaga njaay mbay njaga mbuub laay laay li la <laughs> noona lañ tukkee di lañ tukkee noonu lañ tukkee ndeysaan waaw njaay mbay parce que njaay sàmba mbuub lañ waroon na njaga mbay njaga mbay ñu def njaay mbuub ñu def njaay mbuub njaga mbay laay laay laay ñu xam ne juum nañu waaye duñ fi ne di ko rectifier nañ leen dem rek bu ñu ñëwee dina affaire boobu bu ñëwee bi ñu demee ba tukki ba ñëw lañ koy dogg régler waaw xoolal mag ñi niñ daan ànd di jaay waaw yàllaa bañ waaye heure bi taawu njaay sàmba ci aram Diop njaga mbay la tudd yàlla weddi rek ndeysaan. Oh. xale ba teel a faatu. teel a faatu ndeysaan. Ah, xale bu baaxoon moom tamit. Mm-hmm, mm-hmm. niru woon niru woon turandoom teel a siiw. teel a siiw da doon xale am fukki at ak juróom ñeent yooyu siiw. mën a way ñëpp xam ko. Mm-hmm. cat dugg. cey cat mbay. cey cat waaye yal nañu yàlla musal ci sang la yal na ko yàlla. amiin ni yaakaar macha allah yéen a ngi ci émission bu mag bi ñuy defee ci la télévision 7TV. télé bi ñuy nduru ba noppi di ñu dajale la télé qui nous rassemble et nous rassemble tey moo ñu boolewaat fii ku ne bekkaay ne làmb ku ne bekkaay ne sport la léegi rek maa ngi waxtaan ak yow ci Bantamba TV nga ni ma ñaari émission yi ñoo ci gën a am doole muy culture ak sport kon foog naa yow bàyyi nga sa bopp xel yàlla ñu dund nag ba nga fekkee lépp mbay lan mooy diggante Bécaye ak làmb ak Bécaye nu mu def ba ah, macha allah créé fi émission bu mag bu ñu naan Bantamba boo xamante ni ay jamono bu Bantamba mësaana commencé kenn doo gis kenn ci biti ñëpp dañuy daw di seetaani Bantamba. ba léegi sax. waaw def def ba def def li neexoon nit ñi rek. Mhm. nit ñi danay danay wut. Mhm. xam nga boo gisee émission ñëw rek maaseeg nit ña. Mhm. c'est parce que day am lu nit ña soxla. duñ ko gis. dëgg la duñ ko gis duñ ko ba bis ñëw rek. ñu gis xool ci tele bi rek gis benn émission ñu métier. waaw. Ah, sport bu njëkk ci ku nekk yaa ku nekk mi ngi woon ci sa xel. sport bu njëkk woon ci seen xel ñëpp. li tax mu ñëw ñu adopté ko c'est parce que dañ koo moom dañ koo ëmb ñoom ñëpp. turu bantambaa bi turu bi turu bi. waaw turu bi nag place la place bantamba. place la boo xam ne soose yi. fa ñuy toog ci pinc ma. ci suufu garab ga. guy ga guy guy bantamba. am na ñuy wax bantaba la. waaw am na ñuy wax bantamba. Hmm. Eh, bi nu bëggee amal bantamba tour hmm. émission bi. ñu Alaaji Njaay liñ émission bi daal kenn du ko jox turu olof kenn du ko jox turu alpulaar hmm? mun ngeen ko seetal turu mhm. beneen tur séeréer joolaa nangam nangam soose wala soose waaw moom alpulaar alpulaar mu def ko effectivement ñëpp olof la ñuy làkk olof la mu ne ñun leen wut leneen ñun woo ñoom ñu fi toog ñoom ñu woo te euh, bi nekk ci bunt bi waaw jeeju jeeju nu nuy waxee làmb ci joolaa jéeju ah, xaw ma nu nuy waxee làmb ci joolaa daal waaye. Kaas hmm. Ziguinchor am na place bu tudd Bantamba ba mu ne Bantamba rek. laay laay li la mu sone ci oreille pare ala moom visite waaw waaw waa ji pareegul sax ñëpp ni Bantamba. laay laay li la. muy Bantamba et tamit ñu liggéey ko nag. ngeen liggéey ko waaw. surtout ndaxte bi ma ñëwee ci 2S. <laughs> boobu tuddul 2S. boobu RTS 2 la tudd. ah bon waaw 2S tuddul woon 2 filialu RTS la woon. Hmm. ñu naan 2 RTS RTS 2. man bi ma fay dem RTS 1 la tudd. mais une semaine lan fa def dama faa dugg rek turu 2S génn. ma maaseek moom nag. mu doon hmm. sama bébé. mu doon sa bébé. ba may ñëw fekk naa fa yeneen émission fekk naa fa ñoom Kebs ñoom Pape Cheikh fekk naa fa émission émission ja musique. ci. salsa booba nga jógee Walfadjri dem fa. booba laa jógee Walfadjri. d'accord. dem fa. Mhm. et ñu jox ma ko ma ni kon nan leen ko def journal rek journal mhm. télévisé. Mhm. waaw di wax di wane élément di wax di wane élément. wane waxtaan wane tuus waxtaan wane bëre. waxtaan wane sañse waxtaan wane image du jour. wax noonu lañ ko def ay rubrique lañ ko def ba mu jeex nit ñi nag. danoo bëgg xam nga di nga bëgg mbir. te doo xam foo koy jaar. waaw nit ñi nag ban demee ba gis Bantamba. Mhm. ñu ne la ñun lii lan doon wër. lii lañ doon wër. pom bii la. bii la dëgg la. ta booba bi fi ne. RTS la ne waaye paa yi ñoo koy animé. ba pare tur bi pertinente. waaw et puis tur bi dal. dal xanaa xamoon ne tur dina yóbbu dina yóbbu dina yóbbu nit. Mhm. fu sori. fu sori dëgg la. boo déggee Pelé. Pelé waaw xam ne football kat la. xam nga maro waaw boo ko déggee. waaw <laughs> nga dégg Messi. nga dégg Messi. nga dégg Ronaldo. wala Sadio Mané mii ni ko yàlla may. ni ko yàlla may waaw noonu la àdduna bantamba ñëw nag ñëpp bëgg. dëgg ma leen ciy defal li leen neex. Hmm. bari na ay rubrique yu nekk ci biir bantamba ay nitama woo wax ko. du man de déedéet. ñoo xam ne sañse benn colonel armée moo ma ko jox. ndeysaan sañse. sañse ni ma mais bu njëkkoon la mu doon am sañse. Mhm. mais pour que créé ko <laughs> rubrique bu sañse. bu ma dëgëroon bopp duma ko def. déedéet man mii gañe naa ci benn bés. waaw <laughs> ah, mi ngi noonu. waaw lambu lambu Balla Gaye. Uh-huh. dama fàtte ak kan gañe naa ci sañse loo xam ne un mois dañ ko teg. waaw ah, mi ngi noonu. sañse moo mel noonu après nag ñu indiwaat image du jour xam nga ci làmb ji am na yoo xam yaa ngi ci làmb ji waaye yow doo ko gis. effectivement ñun ñoo koy gis. loolu la ñuy wax coulisse. ñu dugg ci coulisse yi seet ko def loo xam lu insolite. Mhm. ñu génne ko mhm. image du jour seet tamit yan combat gën a weex ñu tuddee ko top 5. Mhm. yooyu et puis ak équipe bi ma ko doon liggéeyal ñoom Babacar. Karaajo consort googu affaire bi dal Sénégal bëgg. ba léegi émission bi ren la def ren la def euh, mais 2005 la woon ah. léegi bientôt dix dix neuf ans. dix neuf ans effectivement. c' est l' émission de lutte la plus suivie au Sénégal. émission bu def vingt ans presque. ba pare mel noonu. loolu bëriwul liggéey ba woon te ba tey jii it yoratuma ko Modou Mbaye yor ko di ci liggéey di continuer macha allah. dinañ ñëw foofu ci moo Mbaye mais Ndiaye dafa am benn. Euh, naturel boo xamante ni yow moom ngay reporter làmb mu neex nit ñi nag Bécaye day nekk ci biir làmb am koy def fee ci ruq ba Bécaye dugg ci biir micro bi ne eh eh eh yow lee ngay nangam nangam nit ñi xaaju di daanu lan la. loolu man la la loolu loolu ban la. loolu ma ma toogee nii di toog nii di waxtaan ak ah, yow. Ah. bu ko ma amoon it noonu rek laa koy reporté du ma ko changé. ñu ngay léew tóor waaye déggal li waaye ñu ngay léew tóor dóor na ko naa nga pare naa ci. Ah, waaw kenn di def di ko yow eh yow. booy loolu loolu bàyyil kii dafa lii. bi ma jëkkee def reportage jóge làmb ji dem ca rajo ba damaa ñëw naan day saan maam lees naan ma ban day saan fii Mansour Mbaye abu fi de ah, moo tax ma ne la ngoy na doon ngoy topp ngoy dëgg la mbay maam lee sama ko wax boo gis sa maître boo gis daa jàng wallaay dëgg la danay tari oh damaa ñëw nag ndeysaan bi ñu defee ni mm. Mansour Mbaye ni ma eh, kii laam lees ni ma ah, non non non mm, ndeysaan Mansour Mbaye ko moom ma xam naa Mansour Mbaye ma ne ko wax ah, ma ne ma mais jëliwu ma ko yow laa jëli indil ma Bécaye Mbaye oh. ma xam ni wax na dëgg mm-hmm. ma def Bécaye Mbaye def sama reportage waaw kon ñu ngi léewtoo nangam nang bu ma mënee tooñ tooñ. waaw caméraman bu ma sene ma wax ko. nga sene ko ba arbitre arbitre bu ma sene arbitre fii nangam nangam yooyu. yooy yooy moon moo naturel. ndeysaan ndeysaan waaye puis nit ñi bëgg. bëgg ko bi ma njëkkee def direct <laughs> naan indeer eh, bi nekk si sama noppi jindi leen ko. <laughs> parce que booy bi dafa jël micro preneur de son ba samp ko ca ndeer ga reng reng ma ta mi ngi def direct sa sama nopp bi ma ne ko eh sa ndeer gi nga teg ci sama nopp bi jëndi ko boy bi daa dana dina tiit kay. parce que musul dégg ku toog ci télé. waaw wax di wax yooyu. sa yoon newu ci. wala benn booy bu jóge fële ma xool ko kàkkateen. ñëw toog sama wet bëgg maa jaay. ay mbir bëgg laa jaay waaw. ma ne ko eh boy man ma sa morom wala bëgg laa taxal nga ne ko puusal. yaa ngi may taxal puusal man du ma sa morom puusal dale. yooyu Tafa Ndiaye daaw ko def. waaw dafa dafa dafa dafa kii woon. waaw stretch dafa dafa sévère. Ah, daf ko daf ko teg ci yoon dafa classique. waaw waaw télévision mooy télé télévision classique. effectivement. man ni nag man télévision télévision classique bi amu fi. non non naa saase affaire. dëgg la dëgg la ñi bëgg. nit ñi bëgg. nit ñi toog seen kër dégg ma naan eh boy puusal fii. waaw eh, waaw sabar toogal benn plat. eh boy bu fi waxaa eh coupé ma micro bi. waaw parce que nit ñi après ils ont aimé. sa digganteeg Siteu daa dem. gàddu yaa ko njëkk yaa ko tooñ ko yow booy ni ngay waxee. non waa dafa dem gàddu ab téere <laughs> kaamilam xamu fu mu ko jëlee <laughs> ma day waat. xam nga yi dañ ko ne bi ngay ñëw naturel loo. naturel loo waaw. Ah, ah, waat quoi. ma ne ko looy waat may wax mu génn téere. <laughs> yor téere ma gol day ram ñu taxaw sama gàtt. ma ko booy téyel sa téere bi. waaw man duma sa morom. waaw waaw. tegal sa jëlal sa ci estade naan da ngay waat pourtant am naa ci problème am na rajo RFM def nañ ci émission yekk xaw ma nu mu tudd sekk ak kan sekk na ku daan animé ñu ne voilà démb bekaay wax téere bi nag ba jël xas ma ca su cangoon ñu daje maa ngi moom mu ne ma xumbal rek. xumbal waaw waaw moom xam yooyu yëpp ay ay ay nit ak parce que man télé boo ci dem ak rajo boo ci dem maa ngi ñoo ma doon liggéey wallaay dëgg la wallaay dëgg la dañoo nekkoon ci benn télévision boo xamante ni dafa amoon doole trop muy Walfadjri rajo rajo rajo boo ci dem tey jii télé boo ci dem kedda nga fa ko fa mu sa nekk. ndeysaan waaw ba ci ñun Papis Mbaye. waaw Modou Diouf ñu ngi leen di nuyu bu baax. waaw Modou boobu Modou Diouf Papis Mbaye mu nekkoon sunu def. dëgg la si Lamine sax gënalu ko. mooy ñun daal ab koo kaay ma yëgale ku sa liggéey war fajiri war fajiri nga bëgg ci sa xol. ndeysaan man de la ko xamal. parce que wal fajiri boobu. Mhm. non wal fajiri boobu dafa neexoon. télé rajo di télé waaw. rajo la boo mel ne da mel ne kuy seenaan télé. wallaay dëgg la moo sax. voilà loolu la woon moo tax ñun ñëpp ak way bi ci yi mu ci def ak. voilà war fa jëri beneen affaire la dëgg la dëgg la. war fa macha allah. macha allah dégg li sama nijaay wax. nii la ëttu kër ndaataan yi di demee. macha doon émission boo xam ne nag. ah géwél ko moom. waaye képp kuy ndaanaan rek yaa ko moom. nijaay. Hmm. wax nga sa digganteeg làmb sa digganteeg Sidi Lamine manquement bi. waaw bi nga fa jógee ni mu la manqué. ah trop. ndeysaan jóge naa wal fajiri. Mhm. ay jour du ma nelaw. ndeysaan. Hmm? Hmm? waaw waaw. ay jour parce que man man jànguma presse. man li ma jàng yëpp wal fajiri ba wal fajiri école la woon ci man. laay laay man xam nga dan ma daan fay. mais école buñ ma daan fay la. oh. man dama doon jàng. ma am un grand professeur bu am lees Less Camara. ndeysaan. am ay collègues yoo xamante ne nii ñoo may ñu ci bëri am na yoon ma jàngal am na lu ma leen jàngal. Mm-hmm. man am na ñoo xam maa ngi leen di gis ñuy def ay journal télévisé ci yenn télé yi. Mm-hmm. man bokk naa ci seen formation. Mm-hmm. am xam ne maa ngi leen gis ñuy def ay émission émission yi am ndam man bokk naa ci seen formation mais ñoom it bokk nañu ci sama formation dëgg la parce que man jaaruma ci benn école man directement foofu la te man ñëwuma woon pour bokk ci rédaction bi man maa amoon sama cogte bu chaque jour ma ñëw mais man làmb la ma ko ak njéenum Sénégal njéenum Sénégal sax a ci gënoon a fës làmb ja ma ci dugal cey parce que comme bi may xale dama sa bopp gëm sa bopp may xale damaa oh. bëggoon làmb din daan dem ma xëri caam billet cinquante francs sax jënd naa ko seetaan naa fa Robert seetaan naa fa ma Madiaw njaay seetaan naa fa Samba Diaw seetaan naa fa Souleymane Diaw Mbaye Guèye ñoom ñëpp seetaan naa leen foofu mm-hmm. bëggoon ko bi ma ñëwee nekk ci yor folklore mu doon tradition mm-hmm. mais man leen jox leen ma làmb ji ñu jox ma làmb ji ma dem làmb ja di reporter. Mm-hmm. bi ba jëkkee jox làmb ji ma dem ca làmb ja. Mm-hmm. sa premier reportage. premier reportage jar naa lool war naa neex de jar naa cent milliards. ah Ndiaye ñu ci Ndiaye. <laughs> waaw mu yor téléphone la ñuy reporter ah. ah waaw téléphone bi sonné sama fit wi naan tëf tëf. naay programme bi. rek ma ah bisimilah rahmaani rahiim ni ne jël. ah waaw mu dégg journaliste naan woy yaa El Hadj Becaye Mbaye ko stade Iba Mar Diop nous mm. allons l'appeler allo El Hadj Becaye ma mm. ne day laay la <laughs> laa ay waay alaaj Aminata Sarr mooy def journal 18 heures <laughs> waaw ma ne ay waay Aminata Sarr El Hadj Becaye Mbaye laa <laughs> rek am fit waaw waaw noonu rek rek may retour may am retour rek affaire bi neex affaire waaw oh ma ko maa ngi fi Badji Badji ma woo ne ma dang ñu ngi lay dugal ah Badji ma ne ko waa Badji lu may wax mu ma sama yoon newu ci. ah. <laughs> ndeysaan gaañu ne yàlla yàlla xam mu ne ma ñëw nga ñafe ko. waaw waaw. yow lii day dara lii day dara bi laay mais bon naturel lay dem. dëgg la bon naturel woy amee na tu jox ba. ma dóor reportage dóor dóor wax wax woy mi ngi fi Iba Mar Diop mm-hmm. combat diw diw mm-hmm. ah jox programme bi xam naa dans quelques instants combat yi dinañ commencé après mm-hmm. journal ma jëlaat leen ma wax leen li xew fii ci stade Iba Mar Diop combat bi Gaston benn ko organisé nangam na yàlla yërëm ah. mu ne waal merci El Hadj Becaye nous reviendrons dans quelques instants ba ma coupé noo def Ndiaye nooyi xamante ni musuma ko ma. ca saa sama woote waat. waaw. jot Badji. Eh. non ba ko dama ko di merci Badji ngi ci ligne bi. waaw technicien bi jël ni ma fiis ma ne ko mu ne ma toj nga réew mi. <laughs> ma ne ko bàyyi Badji wax mu ne ma xoolal. lii eh. rek la nag. wallaay mbay xoolal bu fi solal sa bopp. dëgg la. ma ne ko Badji baax na. nga lay ndeysaan. ma toj nga Sénégal. wallaay dëgg la mbay. mais xoolal oh. ma teg ma teg téléphone bi sama lii nag laay def. waaw saay moo saa yi ma woo ko ma mu ne ma ah, yaa ngi bëgg a. yaa ngi ah. bëgg a fuuy <laughs> du nii ngay def ba yow gérer rek bu journal bi jeexee dinaa la. dinaa la joxaat ndeysaan journal bi jeex. waaw mu dugalaat ma. ndeysaan ma reporté combat yi continué combat jeex. Oh. ma ñëw romb Sidi Lamine Niass. waaw. si bu ne man de waaru naa mbayeen bi yow ndekete mën ngaa reporté hmm. ah ma ne ah bee wax lii ah way ma maa ngi ko rus nag waaw way man la kay ah mbay mbay mbay ah baax na de ma yëpp mu fexe ba wan ko ginnaaw rek man taluma ko man ña ca kaw laa tal waaw waaw journaliste yi ma ñëw ma dugg rek gaa yuuxu am nañu reporter am nañu kontaan ñëpp kontaan. oh ñoom Souleymane ñaan nañ ma grand merci. nijaay bis boobu doo ko fàtte de ndax bànneex oh doo ko fàtte parce que c'était super. ndeysaan moo doon sama premier reportage. jóge na am fit. am fit waaw parce que dañuy fital. am fit nag effectivement léegi ndekete dara. waaw may dem nag ci kër mbër yi. ndeysaan dem kër màng kër màng laa jëkk a dem. ah mbappatu booy bambara laa jëkk def reportage kër Manga laa jëkk dem comme lutteur mhm. bureau Gaston Mbengue laa jëkk dem mhm. seeti promoteur oh. waaw daal loolu daal noonu laa miine lamb Gaston dama dem ci moom wax ak moom ma ñëw ni ko asalaamaaleykum mu ne ma maaleykum salaam mhm. xam nga Gaston ni mu mel rek ma ne ko Gaston da nga def Mbengue mu ne ma noo sant ma ne ko Mbaye lan la ma ne ko man reporter laa reporter lan mu ne ma ne ko lutte foo nekk ma ne ko wal fajit mu rajo bees ba ne waaw mu ne ma toogal. ndeysaan. ci saa si. oh. commencé nekk sama xarit. waaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan. di ma yedd. naan ma leen rek laa la yëgal. Mm-hmm. bu la kenn dugal ci ay xeex. très bien. te moytul gars yi bu la mayee xaalis dañuy dem wax ko Sidi Lamine Niass. waaw dégg nga loolu. na nga leen moytu lay may xaalis ni corrompre la. waaw woo Sidi yàq sa der. yàq sa der. comprendre oh. yooyu daal laa lay wax waaye sinon ca jàppe xarit chaque jour Gaston woo ma dama mujj oh. tiit ni waa quel patron bi di ma woo bis bu yàlla waa dafa am lu ma gis ci yow rek am lu ma gis ci yow rek am affinité ak les gën a bëgg ndeysaan waa paa yi dëgg la ah non ñooñu ñoo nekkoon sama xarit jëli jaxate jag jéen jibi gay pa Moustapha eh. ñooñu daal mm-hmm. bëgg ma nga xam ne nag kon man maa ngi ci yoon wi. ah oui chaque jour ma woo leen ma toogee ba si yàgg dem seen grand place toog mm. déglu waxtaan bi. Mm. ku wax ma ne la nii. surtout ba naan la affaire surtout. dem ci mbir yi. Oh. seeti leen par benn benn. Mm-hmm. woo Mbaye Gueye wax ak moom. Mm-hmm. woo Robert Robert sama copain la tamit. ndeysaan ndeysaan moom loolu la nekkee sama xarit. ndeysaan mais ki ci doon sama kóllëre. mooy mm. Mor Fadam. Mor Fadam. waaw ah, Mor Fadam. Mm-hmm. dama lay nettali Mor Fadam. damaa wutal sëriñ. sëriñ aywa eh, di jaay bàyyi. danaa la nettali lu garaaw. <laughs> aca aca Mor Fadam. Mor Fadam damay toog ba ci ak benn sëriñ ñëw ni ma Mor Fadam balay seet ma ni tey journal bi passé na lan la fi Mor Fadam war a wax. dëgg dëgg ma ñëw bëgg ñu ànd fa. benn paa. Mhm. ma ne ko lu ah, ngi fi ak sa papa ma ne ko waaw waaw man fii laa dëkk ci dëkk bi. doomi réew mi la <laughs> yóbbu ma ci benn paa dëgg ma ñëw rek mu paa bi ma dugg rek gis paa bi ay ay bagage am yooyu fii <laughs> nag mu ne ma mu ñaanal la mu ne ko ñaan oh. man boobu Ndiassane laa xam. wallaay Ndiassane nga dinañ ñëw Ndiassane. Ndiassane laa xam sama papa sama papa bu bopp bi metti sax danaan Kunta si di ma taal. nii bopp bi wér. Oh. xamuñu leneen. mu ñëw paa bi <laughs>